oui. est-ce que yow nekkoo di rouler pour Idrissa Seck parce que yow li nga fi wax yëpp du dara lu arrangé Macky Sall parce que demander à Macky Sall d'attendre que la conférence des leaders de Benno mm. se prononce ak ni politique u Sénégal salté ak li nit ñi mënee chantage au parti socialiste y a une voix dissonante c'est Ablaye Wilane même s'il valse au, au niveau de l'AFP y a une voix dissonante <laughs> c'est c'est c'est c'est c'est Alioune ah au niveau de la gauche la gauche n'est pas très hmm. léegi nga ne Macky Sall mi nga xam ne ci nguuram ci darajaam la dagg ñoom jox leen nga ne Macky Sall bu soxlawaatee dafa war a toog yéen ngeen d'accord est-ce que yow nekkoo di rouler pour Idrissa sa may mun a tey dañ nga ma mës a tooñ ah non ma la dama lay laaj rek wax dëgg yàlla bëgguma laa tooñ waaw ah, baal ma xam nga lu tax sama sama xarit xam nga lu tax <laughs> moi j'ai jamais triché dans ma ku nekk xam ne mes positions les assume dama koy afficher dama koy assumer dama koy protéger dama koy défendre su ma ànd woon ak Macky Sall je l'aurais dit haut et xam na ko moom une fois je trahis un secret ci benn waxtaan bon bref. non vas-y donc c'est pas la. vas-y non non vas-y non non vas-y non ne te censure pas ce qui est important ce qui est important. Uh-huh. mois je suis avec Macky Sall et Macky Sall xam na ni je suis avec lui Idrissa Seck je suis avec Macky Sall mais Idrissa n'est pas mon ami n'est pas mon ennemi pardon. kon Macky Sall mooy sa candidat. non waxuma ni mooy sama déglu rek xam nga man j'étais j'étais candidat moi-même à présidentielle bul ko fàtte. bul fàtte ni wax naa plusieurs fois wax naa ko ci sa plateau ni mois même je suis candidat à l'élection présidentielle mais pour autant je dis que benn benn candidat la war am pour beaucoup de raisons nga xam ne xëy na waxtaan wi waxuñu fii. benn candidat la war a am. mais candidat boobu kan la mais encore une pour moi. c'est qui le meilleur profil pour Benno Bokk Yaakaar je vous pose la question. le meilleur profil depuis tout le meilleur, le pour Benno Bokk Yaakaar. kan la alors je donne la réponse et tu me permets de dire pourquoi. waaw le meilleur profil pour Benno c'est Macky Sall c'est clair xam nga damay commencer ci sama bopp damay mere sama bopp mere les hommes politiques sénégalais ci débat yi ñuy engagé. Hmm. ay débat de bas étage ay yoo nga xam ne ñu rus naa sax tudd or enjeu yi feneen la nekk may mun a Sénégal dafa nekk ci sous région boo nga xam ne ñun doom yàlla mi ñu suturaal ba fii ñu toog di wax ñooy échappé ci yenn yi te bu ñu échappé ci yenn yi dëgg la yàlla mu ñu ci dimbali mais c'est parce que nous avons président bu nekk à la hauteur Maïmouna, tu sais pourquoi on a créé le GARSI le GARSI Tamba mm-hmm. à Tamba à Tamba mm-hmm. mm-hmm. parce que bu ñu taxawul ak jiyaat ji xeex ak ñoom à Tamba au Mali dinay xeex ak ñoom fii à Dakar ça tous les jours gis nga ñii ñu naan jàpp nañu diw jàpp nañu diw léegi la feeñ léegi lañ koy wax parce que dafa ànd ak une situation politique mais depuis plusieurs années amul benn weer bu ñuy dugg ba mu dee te jàpp ñu ay ay ay ay terroristes fii ci biir Sénégal. soit à l'entrée soit à l'intérieur du pays. Hmm? donc soo amee un président depuis la mort de Idriss Déby. Hmm. Macky Sall est le seul aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui fait face au djihadistes et comme il le fait et comme il le réussit. le départ de Compaoré. jox armée sénégalaise la police sénégalaise la gendarmerie leen moralement matériellement ànd ak ñoom ci combat bi. une fois on était en réunion j'ai vu quelqu'un dafa yuuxu en réunion de mairie quand le président a dit j'avais dit j'ai dit à tous les hommes de tenue lu ngeen soxla ci matériel mën naa leen ko jox pour défendre le Sénégal mais je ferai jamais appel à une puissance extérieure pour mu ñëw di soutenir di défendre notre pays ça c'est un patriote quelqu'un bu assure un leadership en Afrique kenn mënu ko contester dans le monde fu mu taxaw ñu respecter Sénégal ce que j'ai dit tout à l'heure sur les États-Unis sur l'Assemblée des Nations Unies du n'importe kii lañ koy defal quelqu'un ki met tout le pays en chantier amul fooy dem ci Sénégal tout le pays en chantier yàlla suturaal ko nag la ko Serigne Saliou Mbacké ñaanaloon tombe ko pour la première histoire je le rappelle encore une fois Serigne Mbacké soxna loo moo yóbbu Serigne euh, Macky Sall Touba moo ko yóbbu dans la mesure moo ko boole ak une délégation ñamu ko boolee loon am na ci ñett ñoo nga xam ñi ngi fi ba léegi ma leen gis ñu dem ci sëriñ Saliou yu ni ko sëriñ Mbàkke nee kii dafa nekk taalibi nekk wóllëreem li mu ko yéene mënu ko waaye yow nag man nga ko wax yaa sëriñ Touba sëriñ Saliou yu ni ko ana ci loo yëngu boobu il était à Petrosen mënu ko ci pétrole ñu waxtaan sëriñ Saliou ni ko ndax màkk gay nit ci nër bu nër bi daw wuti fa ndax pétrole Serigne Touba ñaan na ko ba mu am ci Sénégal yi ak feeñoom ak defaram yàlla na jaar ci sa loxo kooku la ko Serigne Saliou ñaanaloon booba mu ñëw tey. donc bu dee je termine Abdoulaye Wade ah. yóbbu ko ci Serigne Saliou après loolu. Hmm. ni ko ñaanalal ma xale bi nga mu fi jógee mu remplacé ma. Wade toog en 2004 vous êtes tous témoins. Hmm. ni enfin avec Macky mes chantiers sortent de terre. xaal bu nekk ñam naa ko waaye bu safee ni suukar musuma ko ñam. kon su Wade abstenir en bu mu la bett. ça c'est celui-là superficiel celui-là pour